Kolda. Monsieur Eladji Amarlo, maire de Sagataguet, pour la région de Louga, se prépare. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam santam bu ma nuyoo président nag nuyu naa ñëpp parce que temps bi xat na ma bëggoon que tous les 39 maires de la région de Kolda ñu jóg ñu gis leen et les trois présidents de département le ministre Moussa Baldé s'il vous some sommes 39 maire et 3 présidents de conseil départemental président nag ñun yow yaay suñu candidat wax boobu dëggal nañ ko jeex na mais dama bëggoon wax ak askan bi ak mbooloo bi parce que du ñun rek la Macky Sall am nous sommes des maire nous sommes des présidents de conseil départemental mais vous savez tous que nous avons beaucoup de maire sortants aussi qui se restent dans la mouvance présidentielle nous avons nous avons dans toutes les collectivités territoriales beaucoup de listes parallèles kon nag bu ngeen foogee ni yéen rek kay gañaloo Macky Sall da ngeen di wax seen bopp dama bëggoon ku nekk na dëggal boppam salle bi tuuti na yaatu na ku gëmul li ñuy wax na génn parce que ngunu ngunu bi bëri na président ñun dañoo bëgg Macky Sall nekk suñu candidat ku ko bëggul mun na génn parce que météo politique indiwuñu fi on ne calcule pas on a un homme un homme qui a un destin pour un Sénégal on a un nom qui un destin mondial qui l'attend bu ñu ko tayalee nag moom it bu ñu ko tànnee comme candidat na ngeen dëggal seen bopp na ngeen gër gëm yàlla ku gëmul lu ñuy def ngelawaay na génn salle bi moo gën a rafet moi je vous donne 30 secondes dans mon discours 30 secondes laa jël sama discours ku gëmul lu ñuy def na génn salle bi bàyyi ñoo suñu candidat ñu gañeel ko nous avons les moyens président de vous faire gagner nous avons les moyen c'est pas ce n'est plus une question de bilan ce n'est pas une question de bilan les débats sur les mandats c'est de c'est de la cosmétique parce que ce n'est pas un moyen, un instrument de justice sociale, ce n'est pas un instrument de développement économique. Sinon, vous allez m'expliquer pourquoi l'Allemagne, qui a un modèle où il n'y a pas de limitation de mandat, est développée économiquement, pourquoi d'autres pays qui sont dans des limitations de mandat ne sont pas développés problème. Nous, notre problème, c'est que nous avons un homme qui a les aptitudes pour diriger notre pays et l'amener à la direction que nous voulons. Et président, Le seul arbitre que nous vous demandons d'écouter, c'est le Conseil constitutionnel. Le reste, nu nous en faisons notre affaire. man dama gëm li may wax ndax damay déglu ñii nga xam ne ñoo toog fii tey di wax yow la ñu bëgg yow la ñu wóolu l'Afrique occidentale aussi a besoin de vous cette ceinture de feu qui nous entoure elle est dangereuse nous avons un homme qui a un leadership mondial, qui peut en Afrique occidentale et qui rassurer le monde par rapport au devenir de l'Afrique occidentale. Boudé Mom Kessela, il a tout son avenir devant lui. Mais bu demee ñun Sénégal ñooy ñàkk sama wax gudd na gàtt na fii la mu yem salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. beaucoup. On appelle Amar Lo. maire de Sagataguet pour la région de Louga. Notre ministre, M. Mamadou Tala, se prépare. Salam alaikum, Monsieur le Président de la République. ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu président de l'Assemblée nationale chez le premier ministre di nuyu ministre yi teew yépp ak député yeeg sama mbokk maire yi président conseil départemental yi monsieur le président man maa ngi jóge Louga à la tête d'une forte délégation composée de cinquante deux maires boo demee département de Kébémer fukki maire ak juróom ñaar ñoo fa jóge Serigne Moustapha Mbacké jiite leen ma nga ne boo demee département de Linguère fukki maire ak juróom-ñeent ñoo fa jóge l'honorable député maire de Warxoox Yoro Sow jiite leen mu ngi nii soo demee département de Louga fukki maire ak juróom-benn ñoo fa jóge suñu mbokk di suñu maire Talibouya Ba moo leen jiite monsieur le président Louga juróom fukki maire la ak juróom juróom fukk ak ñaar yépp ñu ngi ci biir saal bi li ma la bëgg a wax mooy ñun ca Kajoor dañuy wax ne taal bu dë tàkk nu ne lañ koy taalee dama dégg ñu làkk la fi wolof wax la nga doon kandidaa dégg ñu wax ko fi ci tubaab pour nga doon candidat dégg ñu wax ko ci xalpulaar comme da ngay doog a jóge ci araab yi nag boo déggul araab ma làkk la ko ci arab ndax nga mën a dégg liñ bëgg a wax président ñun yow la ñu samp te duñu la wax la jiitu waxoon seen yonent ba ànd ak moom ba ci yoon wi ñu ne ko demal yàgg sa boroom ngeen xeex ñun fii la ñuy toog inna hahuna qaidun ñun li ñuy wax mooy président yëkkatil sa loxo samp ndënd mi ñu ànd ko ak yow xeex ko ba yàlla jox la victoire ni nga def nag mooy yoon wi ndax man ci dispositif bi ci laa bokk yow waxoo pour ñu dajeeg yow ñun ñoo la ñaan ne nañ dajeeg yow parce que ñun ñoo ne la bala ngaa wax na nga déglu dama ne fi may mujjee mooy rasulalaay sallallahu alayhi wa sallam yàlla dane ko woon bala ngaa désidé na nga waxtaan ak sa gaa yi wa shaawirhum fil amri waaye nag boo waxtaanee ñoom ba pare ba décider fa tawakkal alallah wakkirlul ci yàlla président wakkirlul ci yàlla ñu jàppale la ñu falaat la un deuxième cinquante ans merci beaucoup Monsieur le ministre Mamadou Tala, pour la région de Matam, euh, monsieur, le, monsieur, le, ministre Cheikh Omar Anne se prépare. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, euh, je ne serai pas long. Je parle donc au nom de la région de Matam. Très heureux et très fier, en tout cas, en une journée, en une journée, de l'AMS et l'ensemble des élus ont réussi à déplacer tous ces maires. Monsieur le Président de les vois pratiquement tous les vendredis. Si vous avez ces maires, vous avez ces territoires, donc vous avez Sénégal, on ne pas. Alors, pour la région de Matam, 26 collectivités. On ne connaît pas un autre, on ne 26 collectivités, Macky Sall, président de la République, Alliance pour la République, on n'a que ça. Et trois départements. Alors, monsieur le président de la République, de Bondy jusqu'à Orefoné, du Djeri jusqu'au Wallon, les jeunes et les femmes, les marabouts, les travailleurs, les gens.